yàlla wax nit ñi li diine bi wax en réalité boo demee ci hymne nationalu France hymne national boo koy lii da nga dem ba vous jóg leen ngeen xeexal seen patrie mm-hmm. dem ngeen xeex jël leen ngànnaay ngeen xeexal seen patrie mm-hmm. mais lan moo tax ñun jullit amuñu droit jël ngànnaay ñu xeexal suñu diine te ñoom seen patrie xaraamu àdduna yooyu ñun ñoom ñu mën ko ñu mën ko jóg xeex pour loolu ça il faut que ça soit très clair et que musulmans yi tamit ñu xam lan la wax ñan ñooy alqaida kan mooy est-ce que Benladine il est mort est-ce que Amir kañ la dee kan moo ko rey nan lañ ko reyee kan mooy Al-Qaïda kan mooy Boko Haram kan la ban personne fan la jógee yan idéo lay doxalee est-ce que dëggantaan xam nga ko fan nga xalaat ni àdduna bi am na fu ñu fu mën a am base te tubaab bi mu ñu dawal drone tim la bombardé la c'est-à-dire il suñu xel quoi comme ñun bu ñu nax léegi musulman yi gis nga li nga dégg ñu ne euh, Samuel Paty bi nga xam ni maintenant la sax est-ce que c'est lu tax na la ñuy naxee lu tax booy bi jàppuñ ko booy bi demoon Birmanie la xam non pas Birmanie benn ville waa ji duggoon fekk gars yi di julli aaj moom mu rey ñëpp noonu le gars la rey musulman yi noonu bi ñu ko jàppee lu tax booy bi jàppuñ ko comme paaka la yoroon mënate ko ko enquête ko parce que waruñu xam ñi ñi waruñu moo tax mu def ko mm-hmm. cest ñu ne pas attaqué les églises les musulmans n'ont pas de avec les chrétiens mm-hmm. te loolu gis na ñoom ils le font ñoom ñoom man dama gëm ni man attentat bi xew bi xew Nice bi xew ni parce que Nice foofu la extrême gauche mm-hmm, mm-hmm. pour am sympathie beneen religion parce que gis nañ ni le monde arabe ak tous les musulmans ñi ngi attaqué France mm-hmm. mais loolu amul gëmmu ne musulman moo ko def léegi nag la meilleure façon de leurrer le peuple xam nga mooy dem rey ay chrétiens quoi lu tax rey ñu ne ñu du chrétien pour jaxase nit ñi pour chrétiens yi jug comme ça ñu ne voilà l'islam al islam l'islam c'est la paix c'est la soumission la paix rey ñu kenn xam lu am mooy se défendre mhm. se défendre léegi nag dama la bàyyi na ñëw dugg sama kër di def lu la neex du ko nangu mhm. dama jël samay position jël samay disposition yu wóor pour bañ nga fooye sama ngëm-ngëm parce que ñoom amuñu ngëm-ngëm àdduna lañ gëm mhm. loolu kese la mais un professeur Samuel Paty entre guillemets ay xale yu am 14 ans 15 ans ans il les après ils viennent pour dire yow tey loolu bu amoon Macron bu génnoon naqarlu ko sax mais Obama def na ko big sall génn carrément ne bu fi kenn caricature Macron su génnoon naqarlu ko xam ne moom président la au fait moo njabootee France am na ay musulmans am na ay chrétiens am na ay animistes am na am na am mais Macron su jugoon def loolu mais kon xëy dëkk bi sax na apaisé parce que ñoom ñoo am une guerre éternelle contre contre l'humanité sax wax. Mm. ndax ñoom seen combat bu réussir église dootul amati France. Mm. seen combat bu réussir euh, jàkka jumaa dootul amati France. Mm-hmm. ils ont réussi à créer naka ngay génnee da ngay ñoom ñoo dañuy créer ay imam des imams ñoom ñooy imam ñoom ñoo leen di jàngal naka la ñuy nekkee imam subhanallah ana alxuraan bi ñoom ñu fekk fi imam 1400 ans imam mi ngi am alxuraan teg ay textes ay textes yu wóor la. c'est que ñoom seen combat ak seen euh, nouvel ordre mondial bi moo leen def problème parce que islam moo leen jaaxal y a toujours l'islam qui est devant eux bu leen jaaxal xamuñu fi ñu koy jaar parce de la mm-hmm. euh, bu ñu si nemmeeku au niveau de l'Arabie euh, saoudite mm-hmm. avec le prince Ben Salman loolu ban lecture nga siy def. non c'est-à-dire xam nga Ben Salman franc-maçon la moom laa la wax ne affaire bi du ay question de arabe. du question de du question de musulman euh, euh, astafirlah du question de arabe du question de de de woote woo musulman mm-hmm. wala woote woo chrétien wala woote woo africain xam nga lan la mm-hmm. question de tawhid la mm-hmm. question de iman la ngëm-ngëm pas-pas ak compréhension ni àdduna géopolitiquement islam ni muy doxee ci àdduna bi ni religion yi di amee problème par rapport ak ñoom ñi nga xam ne c'est des francs-maçons des am seen bëgg-bëgg teg nouvel ordre mondial bi bëgg àdduna bi di xoolee benn bët loolu mooy ñoom dañu déclarer guerre ñoom dañ ñoom ils ont ils ont ils un pacte avec le diable le diable c'est Satan te pacte avec le diable c'est signer une guerre éternelle maanaam une guerre éternelle contre l'humanité maanaam benn xeex boo xam ni éternelle la pour contre l'humanité contre l'humanité nit yàlla yàlla nit rek la am nit rek la fonk. Abdou Karim est-ce que yéen da ngeen xaar euh, si président Macky mu am réaction bu mel ni comme euh, Erdogan nu mu réagir. ne pour wax la moo tax Macky Sall ba ilaa yawmi diini ba jant bi di sow bay wëlbati àdduna bi di wël du mu sax wax ci Charlie ah. parce que waaw parce que du musulman moo tax il est Charlie il n'est ni musulman ni chrétien il est Charlie Macky Sall est un franc-maçon dafa am lu bu mu bokk boo xamante ni bu ŋaaŋee ci prophète Mohamed ne day tiwitee sax bu ko defee ne mi ngi naqarlu li dal prophète Mohamed sax ñu dal si kawam donc cest à li ma la bëgg wax mooy ñun ñun on a compris ça te xaaruñu Macky Sall si loolu. xaaruñu Macky Sall si loolu benn Salman franc-maçon la benn Salman gars yi dañu ñoom lobby yi mu bokk ils ont des vidéos de lui en de décapiter euh, le gars là nu mu tudd sax. Euh, le journaliste waaw le journaliste nu mu tudd sax. Euh, fàtt naa tur waaye waa ji ambassade turque bi nekkoon fa mm-hmm. ambassade Arabie Saoudite turquie la mm-hmm. comprendre Ben Salman dañ ko téye fu baax fi toll nii mi ngi dugal mi ngi saboté Arabie Saoudite di fa def lu nekk mais loolu taxul Arabie Saoudite nekk Arabie terewul Arabie Saoudite nekk gën dëkk bi gën ci dëkk yi ndax alxuraan moo ko gërëm loolu mënul dara ci maqaama yi nga xam ne moom la yàlla jox Seydina Mohamed jox Arabie Saoudite moom moo bon bonam di def ay politique di lëkkaloog àdduna bi dugg ci ay lobby franc lu nekk mais yàqul dara maanaam tey exemple Serigne Touba njabootam gee la Serigne Touba liggéey doomu Serigne Touba wala sëtam bu ko bëgg yàq da sonn yow yaa yàqu mhm. mais yow mënoo yàq li Serigne mhm. mhm. se fii ñaata nit ñoo fi dee fii dégg naa mu bëgg dem rek gaal yi eh, ko 18 eh, boy yu si dee. Hmm. mu ngi dégg nga président naqaru ko nit dem taal boppam. la wax taal boppam ba léegi Macky Sall wax ci tuuti ko jaale ay ñu dagg loxoom mu taal boppam boo fekkee mu ngi jox ay 30 millions 30 millions di ko séddale ay benn bokk yaakaar sax dama bëgg wax ni la ñoom ñun seqaluñu ko ay doomu aadama léegi nag suñu religion gis nga nit sa yaay sa waajur say waajur sa papa sa yaay ñoo lay jur. Mm-hmm. ci niñ la war a juree mais sa fulla ak sa fayda kenn du la ko teel chargé yaa koy lijjanti sa bopp gis nga suñu diine bii nii gis nga bu ñu ñàkkee fay dañuy ne gëmuñ dara ay formation lañ dañuy am ay gel dañuy laal ay wayen dañuy taxawaalu xam ay corona ban corona ana corona

lu ñu may dara. Mm-hmm. juste rappeler aux internautes qui nous suivent suñu page Facebook euh, Sénégal 7 wala si YouTube bi euh, Sénégal 7 yéen a ngi seen biir émission le rendez-vous de Sénégal 7 et je suis avec euh, Abdou Karim Gueye Xrum-Xax di coordonnateur du mouvement Nitu Dëgg Valeurs Abdou Karim ñu continuer jeexale suñu dernier thème moo nekk par rapport ak recrudescence bi nga xam ne nemmeeku nañ ko si immigration clandestine bi sànq ba tey yaa ngi koy junj say biir kàddu ñu gis. ne euh, le 26 octobre bi bi ñu passé dafa am benn collision en maire bu am diggante euh, marine nationale bi ak 70 migrants ban euh, tax 39 personnes ñoo si mujjee sauvé. moo mhm. indi ba awaat beneen mbir bu ëlëm par rapport ak situation immigration clandestine parce que si fan yee ñu wees on parlait d'une vingtaine de morts si explosion bateau tey jii ñuy wax ne 70 migrants 39 rek ñoo si sauvé ban lecture ngay def si récurrence immigration immigration :fra clandestine :fra bi